بسم الله سلم يا ابو تجي ولا شغله ولا ايه ما بنتك ها yàlla ñu jël benn bu jëlee askan ay seen bu xayma ñu fexe ba nangam la ñu jël wax ci jàkk yi. ñu def yi mu ne day baax naa ko koy laaj moo tax leen rek ñuy waaj naa koy wax ñenn ci ñenn ci dafa ñu ñu ne ne gannaaw moom kenn rek la dañ ko def lay bari rek su su su fekkee taw bu mu nangu xaalis waaye man di bari leneen mu daal di doxal ci kaw ci kaw ci bëgg bu doon coow de wóor na mu jóg moom ñu wàccee ndox mi léegi mu wàccee ndox ma léegi Cheikh Moudou Fall ne ndegam kookee daal di am ak sëriñ benn bis ma taal wax sama sëriñ benn bis su ma nangam gën maa gën maa gën sama sëriñ kon nag ndox mi lay ñëw daana barkeel yàlla moom suñu borom def muuroo ko rek ci dara jee sama doomu sëriñ yii sëriñ am mu ma mu ma mu des ko gën a wàññi ak bàyyi sa awal yi ndax njaboot Cheikh Moudou Fall bi nekk yëpp ak sëriñ sëriñ bi rek am na ci maam yu bare bare ngir sëriñ bi naan leen sàmmul baal seen maam bi mënuñu doon ndax kat am na ay jamono eh, soxna su soxna su soxna eh, su loo waajur soxna leen toll doom ji wax soxna soxna ak yeneen la comme liggéey yabal yabal sëriñ bi jaaree ba sëriñ bi demee ba ko wax ne ay sëriñ bi dafa soxna su loo sàmmul baal leen ko yóbbu mu ne ko góor la amal jiw mu ne ko mu ne ko jigéen la mu ne ko ndax dañu ko tuddee soxna soxna Soxna xanaa ma dem na. kooku albaab la albaab mu ne ko boo demee def na waaw na waaye dafa soxla nga ma kon ab suuf ba loolu ci ci maam la asalaamaaleykum wa rahmatulah.